jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak euh, Rafah TV la chaîne de télévision culturelle et religieuse ñu ngi leen di nuyu di leen jaajafal di am mbégte bànneex encore une fois ànd ngeen ànd ak euh, Rafah TV la chaîne de télévision culturelle et religieuse ku ne xam naa ne nag ñu ngi dégmal ay élections législatives euh, ñu war ko amal le 17 novembre bii nu jëm incha allah loolee nag waral Rafah kër gi di Rafah TV di amal ay jataay waxtaan waxtaan jataay waxtaan yooyu nag ñu fas ci yéen seq ak tey Serigne Aliou Sylla Ba yàlla ñu ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw kàddu yu ak ak dalal fii ci kër gi di Rafah TV lan moo say kàddu nuyoo jëmale ko ci mbokk yi xam si ne ñoo ne seetaan à travers Rafah TV. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax leen sant ci invitation bi di nuyu sa cameraman yi di nuyu ñëpp di nuyu mbokki Tuubaa yëpp di nuyu waa département bi. <laughs> fas yéene tamit nag si ak yéen laaj ak tontu. Mm-hmm. ci lu nga xam ni daal yar ak teggin maye na ko fas nañ ci yéene tontu. incha allah jërëjëf euh, Baye Alla si la ci nuyoo bu am solo bu matale boobu xam si ne nuyoo nga ko Baye Alla ñu ngi dëgmal ay élection yow yaa ngi bokk ci ban euh, coalition. man maa bokk ci jàmm ak njëriñ. Mhm. Amadou Ba ko. Mhm. wax ma jiiteel ko département bi. Mhm. Euh, jàmm ak njëriñ ko doon xamal lan nga nuy wax. li leen di wax mooy jàmm ak njëriñ moom ku ne xam na ko. mooy dégg naa ci magum taalibe mu baax. mu moom moo gën lépp. su àndee njëriñ nag rawatina. Mm-hmm. loolu moom moo mooma rek bari na lu mu gën daal. Mm-hmm. waaw département bi maa ko fi jiite. Mm-hmm. ànd ceeg nag ndaw yu nga xam ci dëkk bi lañ dëkk. ku mel ni ay dagay. Fallou Diop Madakaw. alaaji ñu ngi ak ku ñuy wax euh, Bintu Diop. Euh, dañuy faral di wax en général euh, liste nationale liste départementale boo ñu doon leeralal loolu ci mbokk yi nga xam si ne ñoo ni seetaan lan nga ñuy wax. loolu mooy ki am fit rek dem ci département bi ki ragal jéem a ci national bi. Mm. loolu rek ki am fit. day dem ci département bi rek lu mu am jël. ki ragal. Mm-hmm. day jéem a bokk ci liste nationale bi. Mm-hmm. loolu moo sabab ñun dañ suñu fit day dëgër dañuy jàpp ni rek. Mm-hmm. am na lu ñu man wala ñu nat suñu bopp xam lu ñu mane. moo tax ñu ñëw ñu def na ci département bi ñu nangu ko. yow yaa ko yaa yaa yow yaa tedd liste département bu Mbacké. maay tedd liste département maa ko jiite. Euh, gisoon nañ Mbaye Alla dafa mel ni féete woon na ci ki nga xam si ne mooy Macky Sall. waaw Macky Sall féete woon naa ci. Mhm. féete woon naa ci. Mhm. loolu lu jeex la Macky Sall dañu ànd ak moom ci ngor. Mhm. mu wannu ni day am ngor jiital Amadou Ba. ñu dem ci ba ci biir mu mel ni dafa rocceku ñun nag ay gor lañ boo ñu yóbboo ko ci menn mbir te gis ni ki ñu gis. nit la nit ku yiw la nit ku baax la wóoroo ci koy ñun da ñu fay bàyyi rek loolu mais Macky Sall moo fi jiitu kii de moo fi jiitu Amadou Ba de. waaw moo ko fi jiitu. mais asgor am na loolu kenn du ko def. kenn du ko ne yow ba pare wàññi ko wàññi ko di ko xeex loolu rafetul. waaw Macky Sall dafa waxoon Amadou Ba ne yow la ba mu xamu. waaw loolu kay ñëpp dégg na ko yow journaliste kay loolu fi la la moo ko nii yow la yaay suñ te yaay yu jiital suñ coalition. Mhm. ba ko ñu wàññi ko dellu gannaaw di mhm. moo tax nag am jom am fulla am fayda def li mu war a def. Mhm. ba am li mu am. Euh, yéen a ngi dëral jamono ji yéen a ngi amal li nga xam si ne mooy campagne électorale bi euh, fii ci département bu Mbacké nak ngeen koy amalee. niñ koy amee comme ni ko sëñ bi bëggee rek. Mhm. murid yëpp bëggee ko ni. Mhm. yar ak teggin. Mhm. ci loolu la ñuy dox ba ba campagne bi jeex. loolu ñu dégg ci leneen du dul loolu yar ak teggin. respecté suñu kilifa yi. respecté ñëpp rek ku fi nekk. wax département bi moom yaakaar naa ay kilifa fi ëpp ñu dut kilifa. kon ñun li ñuy def daal fas yéene leen a jox seen cër ba mu mat sëkk. bu dee au niveau de Touba wala. Touba rek département bi yëpp rek. fépp fu ñu yor lañ bëgg a doxee. Mhm. boo jógee fii foofu sëñ bi sëñ jut bëriwul mbaa ay mbokkam ne fa wala ay doomam wala ay rakkam. kon mhm. bi ñun wala région bi sax fu ñu fi a dem rek yor mhm. euh, ci terrain bi. waaw ñu ngi ci. Ah, askan wi nu ñu def ak yéen jox nañ leen loxo wala. àggagoon ci askan wi dañu dem ci suñuy kilifa. ba am seen ñaan am seen digal doog àgg ci askan wi. waaw naa ku jóg jaar ci sa kilifa teral ko ba pare yow mi muy egsi ci yow da nga xam ne kii eh, lu baax la bëgg. Mhm. Mhm. Euh, ki nga xam si ne mooy amandu Ba jamono ji moom mi ngi sur le terrain. waaw mi ngi sur le terrain mi ngi dox yaakaar naa ni mi ngi am jàmm ci li muy def. ñu ngi koy gis ñu ngi koy siiwal. Mm-hmm. am nañ ci yaakaar moom bu baax. Mm-hmm. ceeb bu nekkee ci jàmm jooju xëy na njariñ feeñ. waaw jàmm ji ñun xam nga du feeñ ak du feeñ nit ki moom fi nga dëkk rek nga mën a feeñee. Mm-hmm. ñi nga am leen teel ñu xam la nga xam leen. nga jëf leen tee ñoom. toujours ñu lay wax ne bu doon bàyyi la dañu lay jàppale léegi nag tey bàyyi la la. leen di xaar ba xam ci luñ nekk. Euh, bàyyi la dañuy gis en général bu euh, élection yi di waaj a ñëw. wala bu ñu nekkee ci période campagne bi day bari lu mel ni euh, violence lu muy faral di am euh, loolu boo doon sànni ay kàddu jëmale ko ci ñi xam si ñoo koy def rek lan nga leen di wax. loolu li ma jàpp mooy ñi ko daa def rek ñoo koy def mais ñi ko doonul ma def duñ ko def. Mhm. ñi ko gis ñu doon ko def xëy na ba ci jot ci nguur dañuy mhm. defee ni loolu rek moo leen koy joxaat. Mhm. mais aduna nag day soppeeku. nañ def jàmm ci réew mi parce que lañ def ba rey doomi jàmbur yi. war nañoo mën a nag bàyyi loola jëm ci fexe jàmm ak njariñ comme ni ñu ko defee rek ñun. suñu tur buñ buñ ci ñëwee rek loolu mooy li def jàmm wutal nit ñi njariñ. Mhm. alors euh, euh, campagne élection élection yi euh, yéen a ngi rafet njort ne man ngeen a am majorité. xam nga nit moom du dugg lu mu amul mhm. comme li ma la wax rek. nit ki lum dugg na ca def jëmbat fu laam def li war a def rek. Mhm. nit ki ñun ñun àndewuñoo ak ñoom ay ñu wateel ñoo ñu ñàkk ñoom dañu daan ànd ak ñoom buñ ñu wateelee dañuy ànd ak ñoom buñ ñu wateelu dañuy ànd ak ñoom. incha allah suñuy bokk taalibe lañ. kon ñun loolu rek lañ am yéene. Mm-hmm. ànd koog ñoom. sëriñ bin bokk daal. Mm-hmm. man bi ma daan gën di dugg ci terrain bi loolu ñu ma dem coow la bari li ma leen di wax mooy. Mm-hmm. nan fexe ba ànd ngir sëñ Tuubaa parce que politique day jeex te du bëriwul njëriñ noonu. waaye nag boo ko suñ borom na too da koy nangu rek. Uh, ndax uh, li nga xam si ne moom la ñenn yenn politiciens uh, di wax. di faral wax ne bu opposition bi amoo amee majorité dañuy bloqué réew mi Euh, ku mel ni Barthélémy Dias di ko faral di wax ndax euh, gise nga ko noonu. Euh, xam nga am réew lañu am lu ñuy roy muy démocrate réew yi ko am yépp mmh. saa boo gisee ku nekk pouvoir rek ñeneen ñooy jël assemblée ba parce que ñu mën a liggéey ni ma gisee Afrique yi kenn koo ci bàyyi jox ko lépp boo sàgganee di yow di nga am problème parce que ñoom bi ñu tàmbalee nii góor nañu kenn deful dara rek ñu ngi indi ay problème yu baree bëri. Mmh. kon nag yaakaar naa ku leen jox lépp rek da dem ba rëccu fekk na bay wéy la kon nag nit ñi ñooy xool xàmmee xam-xàmmee comme ñun niñ ko xàmmee rek. dafa mel ni dafa am wute goo xam si ne dafa am ñi nga xam ne ñoo fi daan nekk ak ñi fi nekk jamono ji. ci wute gi. Mhm. waaw ñi fi nekkoon ak ñi fi bëgg a nekk nii loolu am nañ wute parce que ñi fi nekkoon dëgg la coow li bari woon na waaye fi ne nii jàmm ji ñi ñu doon wax naan amuñu ko yaakaar naa ñu ngi gis jàmm ju ko ay wu ko gën a metti te kenn mën a koo jàmbat ñi ma gis ñi di ko jàmbat ñi ci ëpp ñëpp ñu ngi leen di bunu xataal mhm. buñ xataal googu bokkoon na ci loo xam si ne ñoo taxoon élé ñoo taxoon askan wi jële fi ñi fi nekkoon jële fi nguuru Macky Sall ca loolu dafa mel ni jamono ji mi ngi am ndax ku mel ni ki nga xam si ne mooy Bougane Gueye gis nañ ñu arrêté ko ak ki nga xam si ne mooy Ambet Ndoye ak ak ñeneen est-ce que loolu tamit doo am répercuté boo xam da koy am ci ci ci pouvoir bi xam nga loolu man dama ciy wax soo di ci waxaat am na ci loo xam ne bëgguma koy wax waaye buñ xataal yi dafa mel ni dafa mën a gën a féete ci ñun suñu bor ci boor ñan. boor ñun ñii. Mhm. dëkkee fii ñu dëkk ci dëkk bu sell bi. gannaaw mhm. ñi ëpp ci ñi ñi bun xaal koo ci topp rek boo boo fii lay sosi. Mhm. ku mel ni bugaan lañ koy mun xataale wax dëgg yàlla nit ku nga xam ni boo ko toppee boo boo delloo ginnaaw ci lim daan wax lim daan def ci loolu rek nga koy gis ku am ku am aw mitit wala loo war a jàmbat ñëw na fa indi fa alalam. yaakaar naa loolu la daan campagne naka jekk kon nag su ko defee wàññi ko def ko rek ñu bëgg ko cee téye. Mhm. xëy na dañ ko bëgg a bunu xataal rek wala ñu gis ni mi ngi màgg di yéeg ñu bëgg a wàññi ay laafam rek mhm. bugaan moom masha Allah yal na ko yàlla defal cat rek jàmbaar la mhm. bëgg naa ko lool ngir taalibe gi mu doon noonu lan nga yaakaar ne moo ko mën a saafara saafara gi mooy comme li ma la wax rek lépp ku ko jël jox ñëpp kenn di nga dem ba am jafe kon nag nit gi moom war nay xalaat di ko gut nit boo boo ko joxee mu commencé def nii di yëngatu mel ni dafa bëgg xaw a ëpp. da nga koy wàññi tuuti. wàññi ko tuuti def nan. def nan fexe rek lenn li mu war a yor poids yëpp nga bañ ko koo jox wàññi ci dara téye lenn li. Mhm. ba xam nu muy def parce que nit ki su koo jox lépp ñeneen ñi toog seetaan. am mhm. réew baaxawul loolu. Mhm. gënu ci bopp. kon da jàpp ne élection législative yi majorité bi parti au pouvoir ko am. Euh, xëy na war na ko amoon am bëgg na ko mais naam bu ko amee itam. maanaam jàpp ni du gën ci réew mi. Mhm. waaw loolu laa jàpp yàlla nañ fi yàlla fekkale woon ak ñun ñëpp rek. buñ ko amee. Mhm. danañ gis ni duñ ko bu ko ñeneen amee mooy noonu rek dana gën ci réew mi jortu naa ne. Mhm. parce que réew mi kenn ku ne xam na ne ku waxal sa aqulaay taalaa xam ne réew mi doxul ku ko wax nag laa wax. waaw te réew moom daa war di dox. normalement commerçant yi ñu ngi jooy boo demee ci marché bi fii da ngay dee ni feer la jamono ju parce nit bu ubbee bitigam toog ba ngoon soqi ko wut ah mi ngi bëgg am. Mhm. yàlla nañ ci yàlla musal nag nan ñuy fekkee rek. Mhm. jafe-jafe yi nga xam si ne moom la askan bi di dund euh, coalition bi di jàmm ak njariñ euh, bu fekkoon na tey euh, voix yi mu laaj am na ko ban taxawal ci fas yéene taxaw. moom taxawaay bi mu taxawee bi mu doon taxawee rek ndax bari na lu mu def fii ci dëkk bi ñu bari xamuñu ni moo ko def. Mhm. te def na ko. lu mel lu mel nan yaa lu mel ni dégg nga sëñ Mountakha waxal ko boppam. personne na fa jàgg bi nga koy liggéey. te nit amu ci yoon defoon naa la ma la ca ñaanal ba mu noppee rek dana doy sax ñaan. Mhm. waaw dégg naa titre foncier bi yokk bi bi ñu ko defee war a fay xaalis bi ñu noppee dañu sëñ bi baal ma barkeeloo ko ci sama xaalis loolu tamit. kan kan moo ko def. Amadou jàmm njariñ Amadou Ba waaw. Mhm. yemul ci loolu. bi mu ñëwee campagne fii comme ni ñu defoon sëñ Fallou ak Senghor bi mu ñëwee ne ko dëkk bi jumaa ji ci laa la bëgg a jàppale moom dégg na soxla yi sëñ Mountakha muy la de bi mu ne ko fas naa su ma jotee ci réew mi lu muy jar dinaa ko wut andil la kon ñun dañuy jàpp ni sauver réew mi moom moo ko man yàlla na ko yàlla indi mu koo sauver diggante ki nga xam si ne mooy ancien président de la république di euh, Macky ak euh, Amadou Ba euh, seen ëllëg ban jàngat nga ci am. ay nit moom bu demee ba taxaloo ko ne berse tant rek sa parti ëllëg yi moom yaakaar naa du mën a neex. Mhm. Amadou Ba ber na parti Macky Sall nee na day ñëw jot naa du ñëw. dana ñëw ci élection yi. loolu laa dégg mais jàpp naa it man du ñëw. Mhm. waaw parce que li mu def nii lépp ba tay la réew mi xaw a ragal moo ko ko yóbbu. Macky Sall moo tay la réew mi moo ko waaw. Mhm. waaam que nit ki boo fekkee da nga am problème génn nga bàyyi ba ay élection des ay 15 jours wala 20 jours nga bàyyi ko. lu ko kum def loolu. ñi bàyyi ñi mu téye woon ñi mu woon <laughs> yoon moo leen téye. Mhm. muy Sonko ak ak ak ki jot réew mi tey ki nga xam ne xëy na pour sa gëm moo ci nekk mu jël ko. Basir. kon foog naa ni moo tay la réew mi lam jubóog ñoom ñoom ñi wax nag naan réew mi nangam fekkuñu fi yaakaar naa dañoo war a wax la ñu waxoon ak Macky Sall rek ba jot ci réew mi mhm. ndax bu fekkente ni la war a def def nañ ko balaa génn réew mi ñu leeral balaa kan a génn balaa réew mi bu fekkente dañoo leeral digganteem ak moom digganteem ak askan wi mhm. kon li ñuy wax naa tey réew mi dafa nekk duñ ko mën a gëm ñun parce que ñoom ñoo wax ba juboo seenu juboo di ko wax Euh, gis nañ ne Baye Alla euh, njëlbeenam doon toon yëngatu ci politique. ma jamono ji mu yëngatu ci politique euh, lan moo la poussé à ce nga dugg ci langue politique bi. politique xam nga yàlla day dogal nga man dara rek bu fekkee doo politicien boo manee dara te bëgg ko nangu ciy def sa dara bu yàggee ñoom ñoo lay poussé pour nga nekk politicien. <laughs> dama fee nekk ay jamono bëggoon naa nag toujours Ablaye Wade ay jamono doñ ko yëngul di ko jàppale. ñu koy jàppale di ko feexle ba ñëw pouvoir <laughs> kon bi may nekk Paris noonu la rek dama daan am ay nit di leen jàppale lu ñu nekk ma nekk ca. Mhm. boo leen dee jàppale ba yàgg nag li li sabab ñu jiital la wala nga jiitu mooy loolu rek man gi nga man dara loolu moom moo ci dugal ndey. kon ba yàlla dafa man dara. yaakaar na ni mënoon na dara ba tey mu ngi góorgóorlu di def li man mhm. ci dëkk bi surtout loolu social dama ko man di ko def. Mhm. sama njaboot jàpp ji léeg-léeg su ma matalul li may def ma seet bokki taalibe yi nga xam ni am nañ yërmaande te am yërmaande ci doomu aadama ma wax leen li may def ñu def ci seen loxo. moo tax boo gisee bàyyi la man social baasam it neexut a tas ndax sos naa ko ci lu leer def naa ci sama lal dem li ma daan wax tam mooy sama baas neexut a tas parce que damay jël di leen jox te du ma leen fayu du du ma leen di jox mais bu ma leen joxee dama leen di wax ne lii yéen ko moom mais bëgguma ngeen seddoo ko li da banque dee leen ko yaxanal ba am dara ñi ma yam ay kees lañ doon ñii ci 3 millions am na ci ñu am ba ay 7 millions. te ci ñu koy leblente ren ba déwén dañuy am dara kon defe naa moo gën bàyyi jigéen ñi ñuy dem ci métier yeeg yooyu soo leen bëggee dimbali danga leen di dimbali ci loo xam ne rek amul doo amul benn mét daal boo leen joxee alal ne leen topp leen ko dee leen ko leble ren ba déwén ku leb dara teg ci dara indi fay. Mhm. bu yàggee rek ñu am dara loolu laa def nag ba am base. Mhm. mën na am nag ñëpp duñ la mën a wateel na ko bëggee waaye teewul ma xam ne su ma wootee rek danaa am dara. woote bi ma fi mujj a woote. yaakaar naa lu gàtt gàtt quinze mille personnes wala trente mille war na kaa jege. Hmm. fa ma ko dugal ak la ma fa dugal ci banque rek laa xam. ak ñu taxaw boobu boobu da ngaa nekkoon parti pouvoir. pouvoir man xooluma pouvoir. Hmm. waaw mais askan dañ koy xool ñoom. mu askan wi danañ ko xool mais man li may def xaaruma ci pouvoir. bu hmm. ma ko doon xaar màggal gi ren dama def li ma man def ko na ma ko nu gën na ma ko daa defee ndax dama dama boole yi nga xay amal na ñëpp njëriñ ci màggal gi dama wut ceeb wut suukar wut diw wut ndox. néew ji doole joo ko jox rek mooy boroom daara yi ñëpp da ngay daal di am dara mhm. loo ci doole rek la ngay wuti leneen loo ci dali lay doon waaye boo yoree yooyu moom loo ci doole rek mën teral saw gan mhm. def naa ko lu ëpp na ma ko daan def mhm. social lay euh, de yëngu social bi euh, Baye Alla yéen euh, jamono ji yéen a ngay kujje ak ñoo xam si ne ñu naqaree kujjeel lan muy gouvernement en place bi di président Diomaye Diakhar fay ak ki nga xam si ne mooy Ousmane Sonko Euh, yan stratégie ngeen fas yéenee jaar ngir mën a am ci askan wi lu bari. lu yomb la. ku jéeg ñoom. Mhm. parce que nit ki dafa war a am yermande bu ko amul rek defanteeg moom du jafe. ah ñoom amuñu yermande. yow amuñu ko. ah parce que nit ku la tooñu nga ne waa wan wàññi ko ni ko ratt ci kasa bi te wër na lay mënoo mënoo am benn article boo ko mën a téye. Mhm. bu dul jaay ko doole. nit ku yor social am yóbbu ko ci ay doomu aadama yu loru nga taxaw téye ko téye ko lu mat fukki fan door ko bëgg yaakaar naa loolu du yërmande te loolu moo daanee daaneeloon Macky Sall mhm. kon loolu tamit waruñoo jóg jaaraat ci yoon wi boo amee fu la am fayda nag gis ni ñii waruñ naruñoo jaar ci yoon rek jaakaarloo ak ñoom mhm. parce que ñoo waxoon ni soxlawuñ kenn ñoo wàññi di woote di jéem a jënd mhm. parce que réew mi gis nañ ko def nañ sondage buur dofut def na sondage am xam na ni jékkut kan jékkut ñoom ñu wàññi ko nag di def seen sondage wàññi dem di jënd ay nit ba bëgg dem suñ maire yi seize maire lañ woo te ñoom ñoo waxoon ni duñ ànd ak kenn ñi ci demoon dégg naa ñu wax ne ñoom moo ne wax bi ma ci waxoon dama cee jom nit nag dafa war a tey lu may wax rek na koy teeylu hmm. moo gën nguur moom warul taxaw wax lii tey bu subaa mu ni damaa jum ku ci dëkk rek yàggee léegi yaakaar naa ñi am xam-xam te bëgg réew doo leen mën a saf loolu hmm. acca askan wi boo leen doon wax rek euh, pour ñu tànnal leen yéen seen seen seen seen seen coalition bi di jàmm ak njariñ Euh, ban couleur yenn couleur la yor ak euh, naka lañ ko war a tànne couleur bi dama ko fee fàtte mais ñu jàmm ak njariñ mm-hmm. moo yor symbole bi ci kaw rek bu taxaw guy gi guy lay nuru noonu daal mm-hmm. mais moo taxaw nii rek yor caaba yi am na ko ñuy roy sax mais nag mm-hmm. moom xob bi la yor ñun ñu yor Amadou Ba ak symbole bi taxaw am ay lu mel ne reen ci def ay càbb càbb ci kaw loolu mooy suñu symbole. ku ko xamul nga jéem koo xam foofu mooy jàmm njariñ. askan wi yéen ngi dagaan pour ñu xam nga askan mi ñu ngi dagaan mais ñun du ñu sori ci dagaan askan wi dañoo xamanteeg ñoom jëflanteeg ñoom ñoom ñoo doon wax ni bàyyi la bu dee moom danañ ko jàppale bu doon yow yaa yaa jiite li ñuy def ba tey ñun danañ la fal. Mhm. man dama leen lebal nag teraanga bariwut ku ku nga xam ne noo ngi dox man nga nekk sa mu militant di sequma ak yow teraanga. Mhm. muy commerçant muy ñëpp commerçant yi ñi ci ëpp. ci dëkk bii ci gone yi fi nekk ñi ci ëpp samay gone lañ ñi ci ëpp. mën naa la ni ko ci am koo ci dégg mu yoro ay milliards jaar na ci sama loxo te participe naa ci ci lu leer mm-hmm. mën nañ maa bañ a wateel nag mais teewul ma xam ni jaar na ci sama loxo mm-hmm. waaw loolu moom ci tamaan sax bi kee kee wateelu naa leen moom yàlla moo ko sol falu it yàlla moo ko sol ndax bi yàlla dogalee ma war a falu xaaru ma leen bu doon fi yéen lay xaar du ma falu mm-hmm. suñ borom jox na ma ndombo maa ngi moom kon maa ngi ñaan yàlla rek bu gënee ci man ma ba la lan mu ko poussé mu tànn Amadou Ba yeneen langue politique yi. bëri dama wax ni man gor laa. Mhm. Macky Sall moo ñu ko joxoon ñu ànd leen ak moom ñu ànd ak moom gis ni gor la rek. gis la amadu Ba gor la. waaw gor la parce que ñu suñu sëriñ ci boppam moo bi mu bokk bokk toog moom mu ni moom kóllëreem la. Mhm. Amadou Ba ku baax la yaakaar naa loolu moo indi jàmm njariñ bi. Mhm. ñun ci loolu lañ ci téye rek. am na jàmm am na njariñ sëñ Mountakha ko ko wax mu dem nag daal di koy tuddee parteem macha allah ñun fulla jooju nag lañ am rek. ànd nañu ak moom gis nañ ni gor la yaru na kenn mu fa dégg lu ñaaw ci moom kenn kenn mënu la ko indil wax jeey bari mais Amadou dafa yaradi ko Amadou nga wax lu ñaaw. wala ngi tam di ko wax wala muy saaga. Mhm. am réew nag ñun liñ bëgg ku fi nekk nga respecté suñu suñu yaakaar yi. Mhm. surtout te gis nga ñu di leen tedd a dil. Mhm. tedd mooy mënut a weesu lu toll ne jumaay Tuubaa nga taxaw naan si ñu formation ma nga fa wala am na lu ñu fa def ñaaw la. nga toog ñi ñi ñi seeq àdduna bi kilifa yi fi nekk yëpp nga ne bu ñëwee branchement la san ci ñaari weer yooyu lañ ko def diggante gàmmu màggal ak gàmmu mm-hmm. yaakaar naa ñu dem làq ko tamit jël ay gone jàmbur yoo nga xam ne fii lañ dëkk bu def na làq jant bi def defuñu waxuñu ci mooy làq doom rek door doom dóor doomu jàmbur loolu rek lañ ci doon bañ te loolu loolu mooy li bëgg am mm-hmm. kon maa ngi xalaat rek ku mel ni sama gars yee jàppoon ci nañ xalaat bu baax. Mhm. waaw ni xam ne suñu mag ñi nin def suñuy bàyyi ba ñëw fi ñu ñëw fi nag gis fi teranga ji nga xam ne am nañ ko fi kon yaakaar naa ñun ñoo war a nekk seen défense balaa kenn jaar ci ñoom rek war ngaa jaar suñu kaw ñun ba noppi. incha allah euh, li ñuy dafa mel ni li ñuy jagleeloon ci waxtu mat na boo doon tàggatoo rek ak ñi xam si ne ñoo doon seetu seetaan lan ngay wax. li may wax de man taalibe laa doon moom laa bëgg a doon tamit bëgg naa daal fu ma fekk. kuy sama sëriñ ak ku dul sama sëriñ ni may def sama sëriñ ba ñeme mu ma ko wax dara noonu laay def sëriñum ñëpp loolu daal laay ñaan yàlla na ma ko yàlla defal ak sëriñ amiin yaa rabbal aalamiin askan wi li may tàggoog ñoom mu ngi nii bàyyi la la moo nekk ci liste bi jàmm moo ko jiite ci département bi ku ci mën a jàpp nga jàpp ci bu fekkee seqoon nañ jàmm daan seq ay masla maa ngi lay ñaan rek boo ko mënee nga ñëw wote ci jàmm ak jërëjëf euh, Baye Alla la ñu ngi lay jaajëfal ci wuy si gi nga xam si ne moom nga wuy si suñu woote di jaajëfal tamit ñi xam si ñoo doon topp ci jataay bi di euh, waajtaay waajtaay jëmale ko ci élection législative yi ñu war a amal le 17 novembre incha allahu di leen jox dig daje beneen jataay incha allah jërë ngeen jëf ba beneen yoon. jërëjëf.